ñoom ñëpp dinañ leen traqué dinañ leen jàpp te di ngeen ko gis dinañ nangu xaalis bi di ngeen gis ñi nangu ay kër di loolu lépp day am moo tax ñi leen mi ngi leen koy rappelé waat di leen rappelé ni justice day am dinañ atte ñi rey xale yi day am dinañ atte képp ku rey doomu jàmbur parce que yàlla moo njëkk def justice donc ku yaakaar ni le président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko duñ def justice yaa ngi nax sa bopp déedéet yaa ngi nax sa bopp parce que ñoom justice de Dieu lañ bénéficié wu six mois derrière ñi woon ci kaso yi un an derrière ñi ngi leen doon sosal deux ans derrière ñi ngi leen ñuñ àndaloon ñi ngi leen doon rey donc bu dul woon suñu borom subhaanahu wa taala ak justice am yaakaar naa justice Macky sàll moom lu mu mënoon def na ko mooy tëj Ousmane Sonko ak Diomaye fay ci kaso bi waaye justice suñu borom subhanahu wa taala moom dafa libéré Ousmane Sonko ci kaso bi ki nga xam ni mooy Bassirou Diomaye fay ci kaso bi donc ça montre que encore une fois que yàlla ci ñu borom subhanahu wa taala moom libéré na wane na justice donc moom munul ñàkk wane justice te ñoom Ousmane Sonko. ñoom Bassirou Diomaye Faye le président de la République wane seen justice justice day am donc dalal leen seen xel ngeen xam ne ñi ngeen jiital doo leen ñëw benn yoon di leen fàttali seen wareef ndax xam nañ ko xam nañ ko xam nañ li leen di xaar léegi nag nit danga koy jiital te bañ ko fa xastal dara xëyut sotti yow mii di ko déglu yow mii di dundee yaakaar juddu woo rek nekk sa yaay dalaa ëmb neuf mois pour pourtant ci neuf mois bi bu la génne woon doo mat ci crèche ngay mujjee bu la génne dañ naan dalaa avorté kon heure bii boo deful ndànk doo dund donc loo yàkkamti yàkkamti yépp xaar nga processus boobu neuf mois bi pour nga mun a mat nit nga jóge ci fœtus temps bi di dem nga des sa biiru yaay mu diis loolu metti loolu sa yaay muñal la ko nag bu ko neexoon naani médicament wala posone la dee wala dàngam defu ko nga diis kaw ci ci kawam mu muñ ko muy am ay problème ak ay mettit biir di daj lu ne di génn di doxantu ngir yow ngir nga dal nga def neuf mois ci biiram avorté wu la nga génn ba nga génnee munoo dox munoo taxaw dangaa tëdd ñaata weer nga tëdd mu lay jox lekk di la jox naan di la nàmpal di la dundal ba nga commencé toog jógoo rek dox nga commencé toog mu continuer di la dundal di la dundal di la dundal di jox lépp lu la war ba nga mujjee commencé ràmm ci raam ba ci dox ci dox ba ci wax ci wax ba ci wax say soxla loolu lépp processus la bu jël ay atti atti atti atti at noonu la mbir yi mel noonu la gouvernement mel dara ñëwul sotti jàppal gouvernement ni yow processus bi nga am yow ca bañ ñi nekkee ci toqatal maniyu ba nga doonee toqatal maniyu un ancien spermatozoïde ba nga ko doonee jaxasoo ak ovule di progresser di progresser mat na ay at ba nga doon tey jii am sa soxla di ko wax di dox say soxla yow sax ba nga dem di reproduire temps boobu nga jël donc jàppal ni liggéey bii it dafa laaj temps du parax-paraxe du waaxu du daw du foog ne yaa xam lu kenn xamut ba bugg a teel araftu gars defal lii def leen lee xam nañ lépp lu ñu war a def léegi nag lu ci des mooy déglu leen incha allah bu soobee yàlla dinañ def lépp en tout cas fàttaliku leen ni projet la gars yi di développer projet moo tegu ci table bi ministre bu ci ñëw à partir de lundi di nga fa fekk projet ci table ba lu lay xaar mooy projet bi nga xam dañ ko concocté ay at liggéey ko ba mu mat sëkk bu ñu wooyee un projet de développement sociétal un projet de développement sociétal buy defar société ak lépp lu ko wër ñii naan ko un projet de société donc ministres yi ñëpp dinañ fekk seen table bu ñu ubbee seen bureau benn projet de société bien ficelé bu wax lépp defuñu lu dul ubbi page yi jëfe lu ñu leen wax donc foofu coow du jib bal du tàkk suuf du yëngu donc lu ma leen di wax rek mooy patience car la patience paye inna laa ma saabirina yàlla mi ngi ak aji muñ ñi yàlla nee na aji muñ mooy patience donc yàlla nee na mi ngi ak aji ñi ñii muñ ñoom la àndal Dieu avec les patients ku patient rek jëriñu patience moo may Sonko tey jii ci biir pale boobu six mois derrière amul fenn fu nit wax wala benn borom xam-xam bu wax ne Sonko dina dugg foofu toog fa non yàlla lépp la nëbb lépp la crypté taxaw ba ci général Moussa Fall bi nga xam ni moo toojal démb ki nga xam ni mooy le président Bassirou Diomaye fay ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko mais loolu mooy victoire bi c'était une victoire internationale ndax ki muy toojal noonu moom la attaqué ay cortège am toj ay vitre otoom tibb ko déporté ko delloo ko këram affiché ay ay téléphone am affiché ay këyitam affiché armam lépp photo ko jox ko benn faux compte en mu partagé ko toroxal na ko ci xeetu toroxal bu ne moo ko ko woon buntu këram ndax ay nit yu ko doon caméra jàppalu ko téj ko ci kaso yi loolu lépp ki nekk ci ginnaaw démb te yar naan nii kookoo toroxaloon waajooju kooku nekk di toojal Ousmane Sonko lu Ousmane Sonko daj depuis deux mille vingt et ba léegi kooko ko ko teg kon loolu victoire daru gën a ko rëy sa noonu démb moo toog tey di la tóojal nga naan ko repos mu naan teg attention prêt muy wàcce donc loolu suñu borom kese ko mën moom kese du du kàttan du mën-mënu kenn suñu borom rek moo mun def loolu te moo ko def donc loolu victoire bu rëy la moom Moussa Fall lu nekk ci ñaaw teef def na ko ci kaw ki nga xam ni mooy Ousmane sonk bi mu doon tóojal démb moo tax il fallait ñu xaar lii moom mois de mai bi day retraité pare woon na retraité na Macky Sall indi woon ko pour mu def sale boulot bi mu def ko moom bu mu paree dafa retraité donc mois bii nii di ñëw waaye dafa am lu tax ma bëgg a def spécial ki nga xam ne mooy le général Moussa Fall gendarme yi mer nañ trop kontaanuñ ndax foo dem am na ay gendarme muy digne loolu moo tey boo leen tey boo leen gisee Jean baptist Tine ki nga xam ne waxoon naa leen ko ci l'affaire Adji Sarr ba Macky sàll dem ba Fuuta def décret toroxal ko à trois mois mu war a mu dax ko fayu ko retraitam moom Jean Baptiste Tine yàlla fay na ko tey ministère jóge na ci général léegi ministre la xoolal lu yàlla def def lu baax rek a def lu baax yàlla day ànd ak yow wax naa leen dee leen def lu baax yàlla di leen protéger te bu leen yàlla protéger benn doomu aadama du leen mënal dara man man protection yàlla rek laa gëm. bu may wax boobu Macky Sall lañ ci nguur maa ngi wax ba jëlee fi Macky Sall ba léegi maa ngi wax kon protection kan laa amoon du nguur du état du dara protection yàlla laa amoon tey maa ngi wax moom dem na. te pourtant ba may tàmbalee wax lu nekk jéem na ko mais ba léegi maa ngi wax kan la yàlla Biram Jóob bi ngeen di dégg noonu kooku moo defar armée bi Biram Jóob moomu dañ ko toroxal Macky Sall da ko toroxaloon dinaa la expliquer ñu ci bari ci ñoom Biram Jóob bi ngeen di dégg Macky Sall da ko toroxaloon armée bi la defar yokk salaire yi defar yére lépp mu defar ko fekk fa ay dil yu garaaw ñiy jaay ay tenue armée yëpp mu xeex ko Macky Sall da ko éliminer jël ki nga xam ni moom mooy euh, Cheikh Wade